saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa les géants di bawol tafaati moom les géants di bawol plan yi mu teg moom la sunu lamb xëy fësal mobilisation rassemblement union des forces les plans de tafatine pour battre Boy Niang ñu ne boo yore sunu lamb da nga gis mbooleem plan yu tafatine teg ngir daan Boy Niang la ko daloon ci Ama Baldé moom bawol bawol bi bëggul benn yoon mu dal ko ci Boy Niang xam na ne combat bi mu nar a bëri dina bokk ci combat yi gën a am importance ci carrière am li ni mel bokk na ci rassemblement tund bawol gépp leen ñu nekk ci ginnaaw ginnaawam jàppale ko mbooleem ku nekk ci bawal te mu nga am ci xam-xam bëgg na laa si ginnaawam moom tafaatin dafa bëgg bawal boole seen doole takk ba mu dëgër jox ko mu dem li ni mel nag njort na ne bu ko amee dana daan boo ñaat wóolu nay loxom wóolu na doole la ca des mooy mobilisation ba rassemblement ba ak union des forces ngir mu mën a accomplir mission ña bëggoon a seeni mission te nekkoon VIP ca géejawaay ñoom ñëpp dafa mel ni dañ leen a muy Lac de Guiers 2 di Elton di les 2 VIP géejawaay yi dañ leen a zappé amuñu combat dégguñu promoteur saison bii ñu dëgmal combinaison yi ñu teg yépp amul benn mbër buñ ci boole du lees du lak du elton li nag moo waral journal bi xëy di laaj ba xam ndax promoteur yi du jaadu mu gestu yile mbër wala déet yile VIP géej waaye dañoo bokk ci làmb def nañ fi lu ne ay mbër yu kenn dootul présenté lañu muy Lac de di elton di lees 2 kon jot na promoteur yi gestu leen ba xam nan la def fësal boppam ci bëre dóor moom gannaaw ba mu daanee capitaine bu Caaroy le 21 ba léegi ni amaatagul combat la mu bëgg mooy amaat beneen adversaire ba mën a saf-sàpp ci bëre bi ci adversaire yooyee Baara Ndiaye limousine Cobra 2 ñooñee la rax ca dooli moom Ibou Ndiaye óbbali ne am naa ñu may jàppale xam naa fi ma jëm na ma mbëri jël ma woon leen li ma mëne bu ñu jàllee ci sunu papa Père Kayré la ko dal metti na ba yegg ci lool ay defkati juróomi ndax danoo armé woon yor seeni fetal ba jot nañu tiire li ni moo waral mu ne gannaaw ala la dem day sant yàlla bu baax écurie bay sant yàlla mooy école de lutte Cheikh Mbaba saison 2019 2020 ñoom 13 victoire lan fa am 6 défaite ñoom 13 victoire lan fa am 6 défaite ak benn match ren école de lutte Cheikh Mbaba bokk nañ ci ñi fi gën baax palmarès waaye écurie boobee la def def liggéey bu rafet seen leader ba njaaxum dafa somme moom njaaxum amul combat dafay anay balance seen victoire ñaga senior moo daan vita bu père Diaw trompeur doo daan bekaay bu saa njàmbur Yékini daan marle bu rok énergie xayloo daan saa Thiès de bu abim Ndiaye mbër ma ñuy wax sooga door daan béton armé bu jàmm gën si gàmbaaw internet daan jinde mbay bu papakan moor kankang daan osodd bu Ablaye Jën bu yaraax Tafa Ndiaye de daan armé de bu benn barak mbooloo Cheikh Mbaba Sonko ak Diomaye fils de Zalo Modou Anta 2 bébé Julde ak Soga bu dee seen coach ba Bada la mu xamle mooy dañoo bëgg a remporter sunu lambu bi ren sunu bilan baax na macha allah lenn la ñu bëgg mooy jël sunu lambu d'or coow li jeex jërë ngeen jëf mbokk yi nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah